maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sante sira Dia ndax sira kat lepp lu mu waxone def nako ndax dembu wa mairie newon nañ buñu ñu dinañu ñew jël suñu alal jaxase ñu ni duñu duñu duñu liggéey ñu wo sira Dia mu yabal ay nit mu ñew saytu lolu ñu wax def presse ñu ni ndax buñu ñu nañ ko def ba xeyel ñom lañu waxone def nañ ko waye nak maa sante sant Siré Dia coono amon, ma amoon sonn gi ñu sonnoon lépp taxaw na ma ñi mu ah ñi ngi koy liggéeyal de lepp lu mu lañ santone def na ko lekkuñu naanuñu faxe nañu rayante ba indi jën yi delloo ku ne jëlaat say jën kon non dañ koy ñakkat Siré Dia nag ñi mu ci nit mu tek ci wetam yàqaluñ ko de ñi ngi koy defaral ñun wa ties contane nañu te ñi ngi taxaw ci ginnaw Sira Dia bala Sira Dia xam lool da nit ba élection mana mana worul a ñi de lii suñu coono bii gis na li ñuy daj Sira Dia na wax ak Macky Sall mu li ci ñu marché ñun sonu nañu do nañu bég nañu jël nañ suñu alal waye tay ji nak lool li jël li ñu yóbboon lépp ñëwaat na de waa kan Sira ja yi jëliwaat suñuy jël teg ko ci suñu loxo. Sira Dia maa koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla Sira Dia du ko gërëm dama koy ñaanal yàlla. di wax président de la na jàpp Sira Dia ndax Sira Dia ngi koy liggéeyal mi ngi koy dimbali ci askan wi mi ngi dimbali waa Thiès liñ doon jooy de suñuy rangoñ deñ na suñuy rangoñ fer na ndax ba ñu gisee Sira Dia la suñuy rangooñ fer Macky Sall loo téye woon Sira Dia jàpp ko ndax Thiès mooy xo mooy mooy xolu deuxième capitale moom Sira Dia fi nekk moom la gëm moo ñuy dimbali moom la ñuy jàppale Sira Dia nag képp ku mu tegoon Thiès ñëw nga taxaw fii jàppale ñu ñi mu yónni nag ñu mat daw na Sira Dia di ko gërëm ñu nag fi ne nii lu nu metti wala lu ne rek neex nanu ah. ndax sunu maasa bi ku nu jàppale rek yow la ñuy jàppale nag njiit nag dafa metti waaye boo jiitee ay nit yow fa nga teg sab tànk fa la ñuy teg sab tànk waaye nañuy yëgoo di déggoo ndax mbooloo mooy doole yaa ngi dégg ndax kenn ku ci nekk am na sa morom cër ñoom sunu àndee ak lii ka ñoom xëy na tamit am na droit ci maasa bi suñu amee droit ci marché bi lii am na droit ci marché bi te ku nekk nag ak sam mbooloo mbooloo mi fii ci sunu marché bi fii nga taxaw nii lii kay borom te ñun ñu ngi ci ginnaaw lii ko suba ba ngoon jot mais dangaa bëgg nit da ngay dégloonte suñu ñëwee déglu leen ñu xam ban position nga taxawee ñun duñ la seetaan nag ñu ngi sa ginnaaw loo nekk lu na ñu nga ca waaye nag suñu jàppee nga ne nu bàyyi soo jàppee lu na rek teyal nan la toog duñ la seetaan benn yoon ñu ngi ñaan nag Siré Dia ca kaw ca kanam ñu ci sa ak suba loo bëgg nu la rek ñu la fay ñoo ngi ciy nekk. di nuyu mii tey jii ba ni moo na mën a boole ba nag Siré Dia waaye ñun lenn rek la ñuy jooy ñun lu suñu problème yëpp problème de la ñun suñu problème lépp marché la Siré Dia dañuy ñaan a ah, yàlla na la yàlla may gudd fan ak wér yàlla jàppale la bu baax a baax a baax a baax président nag euh, Siré Dia mu ngi fiy liggéey lu ko xam ne ñëpp a kontaan ndax ñun dañu sonnon torop joy nañu guddi joy nañu bëccëg gisunu kenn ku nu ko fajal Siré Dia ba mu ñëwee ci suñu biir joy ci presque fa la fajo way dañuy ñaan nak ñun yalla yalla nañ am marché président dimbali leen ñu ci marché ñun marché rek ñu ñor amuñu fenn fu ñu liggéey ay xala lañu dimbali leen ñu ci marché dimbali leen ñu am marché ñun wa caisse amuñu marché poisson dimbali leen marché poisson lañu bëgg dimbali leen ñu nanu sonu nanu fatigué nanu lii mo waral loolu ci kanam lii ñun ñun ñun waa marché bi ñëpp ñu ngi ci kanam léegi ah. ñu ngi sant Siré Dia di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yalla na ko yàlla defal ndam yàlla na ko yàlla defal ndam. Ah, donc euh, lii que yàgg waa marché bi euh, ñu ngi leen di santaat di leen gërëm parce que comme waxoon naa leen ko fi keroog euh, ku am kuddu do lakk te comme ni ko Siré Dia ñun mission bi mu ñu sant. mooy saa yi ñu xëyee ñu xool jafe-jafe yi doomu aadama yi di jànkanteel Thiès ñu ciy ànd ak ñoom parce que moom Thiès a ko ñor te doxewu ci intérêt joxuñu ko mairie joxu guñ ko fi yenn responsabilité à Thiès teewul ku soxla mi ngi jog di ànd ak yow pour jàppale la donc liñ leen di wax nag mooy euh, euh, dafa am ñoo xam amatuñu benn pexe muy waa mairie yi Siraja dalee na jaxase jaxase ba dañoo réer xamuñu lu ñu def lu dul di leen jéem a intimider bu leen sedde ci intimidation yooyu. bu ngeen xëyee ñëw leen continuer seen jaay toog tranquillement ngeen jaay xam ne Siré Dia mi ngi fi ànd ak président de la république pour défendre leen tey défendre leen suba seeni mbébét dégg na ko i mbébét yi dégg na ko dina am loo xam ne dina ci waxtaane fa mu ko war a waxtaane mooy waxtaan ceeg président de la république pour ngeen mën a am jàmm euh, di lancer sawat appel un peu aux autorités ne leen nañu wax ak municipalité yi te aussi les jeunes yi nga xam ne les jeunes yi nga xam ne ñoom la municipalité bi di leen di leen jël di leen di leen utiliser pour ñuy jël njaayu jàmbur yi ak di jël jëlu jàmbur yi ci oto yi di yóbbu nañu xam ne seen i sœur a fi nekk seen i yaay fi nekk seen i fi nekk seen nijaay fi nekk te yéen ñii bu ngeen noppee jël seen xaalis bi ngeen di fay ay juuti ñoom seen yooyu du ñu am lu ñu leen fayee donc nañu xam ne yéen yéen a tax ñoom ñu leen di fay donc ñoom nañu conscientiser wu xam ne dëkk bi Siré Dia moo fi nekk ñoom jeunes yooyu ñu ñëw ànd ak Siré Dia mu jox leen li gën li leen mairie jox parce que du ñu jog ci di am retard de salaire ay 6 mois ay 5 mois moo tax ñuy jël jëru jàmbur yi di ko séddoog di yóbbu seen kër yi donc Siré Dia mi ngi fi pour assister leen nañu ñëw on le temps ñu ñëw ànd ak ñun ñu àndandoo defar Thiès jekkali li des. jël ko jox ko président de la république donc euh, loolu la ñu amoon lu wax di leen wax dalal leen seen xel muy guddi muy bëccëg muy taw muy il sera toujours à vos côtés ñun li devenu, def la waaw li ñu def nii di wax di Sira Dia moo tax ñu koy def Sira Dia moo ñu jox ndigal ne ñu jóg leen dem nekk ci lool lépp lu ñu def du ñun suñu jëmm yi Sira Dia moo tax tey ñu mën fee toog Sira Dia mooy ñu Cees te ñun Cees la ñu am ku ko jariñ ñu ànd ak yow dañoo nekkoon feneen gis ne ñooñu dañu fooye Cees ñu bàyyi ñooñu ànd ak Sira Dia mi safoo waa Cees Sira Dia mi faale waa Cees donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ngeen dalal seen xel vive Sira Dia vive le président de la République